الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye mu ñëwaat ak yéen ci seen jotaay wa rattilil qur'ani tartila sunu jotaay bi wees ñu nekkoon doon jàng baabu maxaarij al xuruuf ci téereb eh, muqaddimat al jazariya ba jotoon a lenn ci xaraf yi fan la génne ci diggante al jawf ak al di put ak al lisaan toll woon ci gisoon ya dëkk ci aqsal lisaan gisoo nit ci sunu jotaay yu wees yi dëkk ci wasatal lisaan di digg làmmiñ gisoon xarfu daad ni ci xaafatee lisaan la dëkk waaye gisoon tamit lenn ci xaraf yi dëkk ci catu làmmiñ lu mel ni laam ro nuun ñu wara a doore tey ci baytub fukk juróom benn ci téere bi borom téere bi di wax ni wattaa'u waddaalu wata minhu wa min uliya thanaya nena na ñetti xarf yooyu mu lim di attaa gi nekk ci attaamma wala toyran toyran taago gi waddaalu ak daal gi nekk ci dunya wala diin wata ak taa gi nekk ci turaba wala wattiini tiin nee na ñett xaraf yooyu min hu yaani ñu ngi génne ñoom it min dahri tarafi lisaan ñu ngi génne min dahri tarafi lisaan wa min ulya thanaaya waaye day ànd ak nag reeni ba ñi kaw yaani ñetti xaraf yi ñoo génn ci taraful lisaan maa usuli thanaaya al ulya catu làmmeñ bu àndeg reeni ba ñi kaw da ngay ni ne xaraf woo ci wax rek sa catu làmmeñ day tege ci fi siiñ mi jeexe siiñum kaw fi mu jeexe te bañi saxe foofu at nga yëg ni sa lamañ day tafu foofii kon ñett xaraf yi ñu ngi génne ci taraful lisaan catu làmmeñ maa usuli thanaaya al ulya bu àndeek cati wala reeni bañu kaw wassafiiru mustakin minhu wa min fawqi thanaaya sufla nee na xurufu safir xaraf yi am melokaanu safiir as-safiir sifatun min sifaatil xuruuf ci sifaatul xuruuf buñ ca demee dafa am lu ñu tudde laha didd sifa yu am contraire yu am safaan ak sifatun laysa laha didd sifa yoo xam ne amuñu safaan sifa amul safaan juróom ñaari sifa yooyu as-safiir la ca bokk kon bu nee was safiru mustakin lim ci jubul mooy xaraf yi nga xam ni dañoo am sifatu safir as safir ci wolof mooy ak sab sab noonu picc di def mooy ak sab dafa am ñetti xaraf yoo xamante ni boo leen waxee day mel ni daa am ak sab gu génnaale ci xaraf yi ñetti xaraf yooyu mooy siin zaay ak sood bi nga nee as as am na lu génnaale di ak sab os kadalik az boo delloo ci téere sax léeg-léeg borom xam-xam ci xaraf wu ci nekk man picc la nurul am sab kon was safiiru xaraf yi am sifatu safir mustakin minhu ñoomin ñu ngi dëkk ci tarafu lisaan wa min fawqi thanaaya sufla bu ñu ànde kaw bañi suuf kaw bañi suuf fii taa too ak taa dëkk foofii la xurufu safi di siin zaay sood dëkk waaye bu dee yi ñu njëkk a wax taa taa daal foofu ñu dëkk di tarafu lisaan day ànd ak usul thanaaya al ulya waaye bu dee ñetti xaraf yi di xurufu safiir siin sood zaay ñoom dañuy ànd ak kaw ba ñu suuf moo tax mu ne as os az da nga sa catu làmmiñ tege na ci say bañuy suuf bañuy féete suuf ci kawam catu làmmiñ wi tege na fa kon catu làmmiñ bu àndee kaw bañuy suuf nee na foofi la xurufu safir di génne di sood ak zaay ak siin mu ni waddaau waddaalu wathaa lil ulya addaa gi nekk ci addaanniina danna saw wala yawma danikum daagoo gi nee na moom ak azzaal gi nekk ci eh, akalahu dhib dhib wala ak saakon gi nekk ci sullatun sullatun ñetti xaraf yooyu nee ñoom ñett ñoom it ñu ngi génn ci taraful lisaan catu làmmeñ waaye bu àndeek cati ba ñi kaw moo tax mu ni waddaau waddaalu wathaa lil ulya min tarafayhima lil ulya min tarafayhima catu làmmeñ day ànd ak cati ba ñi kaw ñetti xaraf yooyu génn ad da nga yëg ni catu làmmeñ wi daa cati ba ñu kaw yi daa tege ci kawam maanaam cati ba ñu kaw daa tege ci catu làmmeñ pour nga tudd xaraf woowu wi kadalika ad wala as as ma kon ñetti xaraf yooyu ñu ngi dëkk ci catu làmmeñ bu ñu àndeek cati ba ñu kaw maxrajul lisaan jeex ñuy dugg ci baneen maxaraju ñeenteel bi ci almaxaarijul aamma di ashafataani ashafataani ñaari maxraj la am ci biiram baatin shafa assufla mooy biir tuñum suuf day ànd ak nag cati ba ñu kaw benn maxraj la ak bayna shafatayni diggante ñaari tuñ ci seen jëmmi bopp ñoom ñaar ñëpp foofu it am na yu fay génne moo tax mu wa min batni shafah bu dee ci biir tuñ mi fal faa foofu lay génne ma day ànd ak nag atraafi thanaaya al mushrifa cati bañ ko tiim lool moo ñuy wax ni kon biir tuñum suuf la wax ndax bu ne biir tuñ ànd ak cati bañ ya ko tiim bañi kaw moo tiim tuñum suuf foofi nee na fala faa di génne xarful faa gi nekk ci eh, eh, suratul fatiha ci tur wi alfatiha tur wi xaraf faa googi ci nekk eh, foofi lay génne wala fasabbix fasabbix xaraf yi ko door boo af af da nga yëg ni ba ñi kaw dafa mel ni lu dugg tuuti ci biir tuñum suuf xaraf yi génn kon باطن باطن الشفا السفلى مع اطراف الثنايا العليا موي مخرج الفاء بير تنيم سوف بو اندك تاتي بني كاو فوفي لا حرف الفاء دي جن مغوغ لولا جملتي ومن بطن الشفا فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه mu teg ci ni e, li shafatayni ñaareelu maxraj bi e, ashafataane ngoog mooy diggante ñaari tuñ ci seen jëm bopp nag alwaawu baa un miimu ñetti xarafa fa dëkk waaw boo ne aw aw da nga ci diggante ñaari tuñ la kii lay génne baa un ab ab moom it da yëg ci diggante ñaari tuñ la génne miimun xarful miim am moom it da nga ni ci diggante ñaari tuñ lay génne bu ko defee kon ashafataani moom ka maxraj aam ñaari maxraj xaas ñoo nekk ci biiram baatin shafa assufla ma atraf thanaa al ulya faa moo fay génne ak bayna shafatayni moom waaw baa miim eh, ñoo fay génne kon moomit it maxraj ash-shafatayni jeex na benn maxaarij ci almaxaarijul aamma moo des muy alxaysuum moom it benn génn waay la am te alxunna moo fay génne moo tax mu ni wa xunnatun maxrajuha alxaysuumu alxunna nag euh, sifa la ci sifaat yi nga xamante ni léeg-léeg day gar yenn xaraf tey gar miim ak nuun ci alquran foo fekk gunna ci alquran benn la ci ñaar xaraf yooyu miim ak nuun gunna googi di leen gaar eh, ci ay maratibam mi ngi génn ci alxaysuum alxaysuum nag mooy eh, biir yaxug bakken kenn tax kii jàng ba war a gunna da nga yëg ni eh, diggante ñaari tuñam ba ca xalq fi xaraf yi di génne danaan tekk danaan tekk in fii nga koy yëge ci kaw yaxug ba kenn boobaa gémmiñ gi dootul liggéey liggéeyate daan tekk ndax amaliyatul ghunna yoonam nekku ci lu tax yoonam nekku ci mooy ma ngay génn ca biir ba kenn ca kaw moo tax mu ne wa ghunnatun bu dee gunna nag moom maxrajuha ab génn waayam alxaysuumu mooy fi ñuy tudde alxaysuum lii mooy baabu maxaarijil xuruuf yoon wi di ñëw incha allah ñu dal bunt bi ci topp kon ndax suñu waxtu foofu la yem seen mbokk la woon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye àndoon ak yéen ci seen jotaayu wa rattilil qur'ana tartilan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh رتل القرآن ترتيلا